lu mel noonu nag war ngaa wuy ji lu may nag dafa am dafa am pro bu ñu koy siiwal di ko fa woote niki dafa def xeeti fooy tëgg yooyu mbaa am lu bon lu fay am niki góor a jigéen dafa jaxasoo kon doo saña dem nag wa ante yow nag fit ak bi ca lekk ga bil xiyaar yi nekk nga ci ak tànn nee na buñ la wooyee ne wuy ji moo mënta ñàkk waaye duñu wax ne boo demee faaw nga lekk ci ñamañ lay jox ñamañ lay jox moom boo bëggee lekk boo bëggul bàyyi waxad arxasa yolomal na malikul malik fi taxalu fi ci ruusaanu ruusaanu mooy bañ a dem li kasarati sihaamin naasi ngir bari buux buuxloo nit ña fiihaa ci xewu ceet wa Malik nee na doonte sax dem nga waroon na la ndax li laa ràññeel ci woote ba waaye foofa daa bari mbooloo te buuxante ba metti kon daañu la jéggal rawante ne boo dee kilifa mën ngaa toog bañ a dem baabu ndi ab bunt la fi salaami ci nuyoo wal istizaari ak diisoo wal tanaaji ak déeyaale wal xiraati ak jàng alquran wal duhaay ak ñaan wa dikrillahi ak tudd yàlla wal xawli ak wax ga mooy ak la ñuy wax la bëgg a wax fi safari ci tukki fa bëgg a boole ci bunt bi lu aji ci nuyoo ak diisoo bala ngaa dugg ci néegub jaambur ak déeyaale ñaar mbaa ñett di déeyante ak jàng alquran ak ñaan ak tudd yàlla ak li ñuy wax ci boo dee tukki waraddu salaami delloo ab nuyoo te mooy fay ab nuyoo waajibul aji war la wal ibtidaawu jëkke ga bixi ca nuyoo ga sunnatu sunna la muraxabun su di suñ xemmem loo fiixaa ca moom daa wax ne njëkk a nuyu nit sunna la fay ab nuyoo nag buñ la xasee nuyu moom far bu kifaaya la mënta ñàkk waaye nag nee nañu li ñu wax ni sunna la njëkk nuyu nit fii mu nekk nii moo ëpp tuyaaba li ñu wax ne fardu kifaaya la te mooy fay ab nuyoo daa am yoo xam ne la cay sunna moo ëpp doole ëpp tuyaaba la cay farata nuyoo fay ab nuyoo nag ca la bokk wasalaamu nuyoo ba nag ay yàqoo la moo di bu waxee arrajul waaja ne asalaamaaleykum asalaamu jàmm yàlla aleykum yàlla nekk ci yéen wa yàqoo la tey wax arraaddu aji delloo ja ne wax aleykum te yàlla nekk ci yéen asalaamu jàmm aw yàqoo la wala muy wax ne salaamu jàmm aleykum yàlla nekk ci yéen kamaa xila ni ki waxee fi la xooñeel ko nee na ki nga xam ne mooy njëkk a nuyoo day wax asalaamualeykum ka koy fay ne ko wa aleykum salaam ba tey bu neexee ka koy fay mu ne ko salaamun aleykum waaye ni mu njëkk a waxee nag moo gën maanaam ki nga xam ne moom mooy fay nuyoo ba daal la ci gën mooy mu ne wa aleykum salaam waaye nag bu waxee salaamun aleykum mbaa ñu ne ko asalaamaaleykum moom itam mu ne asalaamaaleykum du ko tee baax ba ak xaruma gën jaabar yi la nga xam ne yan tax yi dana ci yem asalaamu nuyoo ba ilal barakati jëm na ci baatu baraka te an taqoo la mooy nga wax fi raddi ko ci sag delloo ne wa aleykum yàlla nekk ci yéen asalaamu jàmm wa rahmatullah ak yërmande yàlla wa barakaatuhu ak i barkeem nee na nag fi nga xam ne mënees koo weesu ci buñ dee nuyonte mooy baatu barakatu ba li alquranul karim wax ne bu ñu leen nuyoo na ngeen fay nuyoo bu gën a rafet bañ leen nuyu mbaa boog ngeen delloo jëmmi nuyoo ba tax nañu sopp kii nuyoo bu ne asalaamualeykum ñu bëgg boo ko dee fay nga ne wa aleykum salaam wa rahmatullah xam ne yokk nga ca wa rahmatullah bu ne nag asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon mayu la foo ko yokkale dara da nga koy fay rek ci wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu waaye bul ci jéema yokkaat dara dara wala taqul bul wax fi raddika ci sag delloo salaamullahi jàmm yàlla alayka yàlla nekk ci yow booy fay ab nuyoo doon te kenn képp ngay fay itam mu tax nga ne ko salaamullahi alayka ndax loolu kat dégguñu ci yonante bi ne daana ko wax mbaa may woon na ci ndigal waxal rek ne ñu la waxoon wa aleykum salaam wa ida sallama ndem nuyoo na waaxidun kenn dina jamaxati ca mbooloo ma aji sa kon doy na xan hu walis ñoom wa kazalika naka noo ne in radda ndem fay na mooy ndem delloo na waaxidun kenn min hum ci ñoom mbooloo bu ca kenn nuyoo rek doy na sunna sa am na ba tey mbooloo bu ca kenn fayee nuyoo ba rek ba tey fardu kifaaya ba doy na wal yusallim na nuyu arrakibu aji warja halal mashi ci aji dox ja wal mashi aji dox ja na nuyu halal jaalis ci aji toog ja taamu nañu ki nga xam ne moo war mu fexe ba njëkk a nuyu kay dox ak tànkam kay dox ak tànkam fexe ba njëkk a nuyu kam fekk mu toog te bañ a xaar ba kam fekk mu toog jóg di ko nuyu loolu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo ko digle woon tey daa mel ne moom mi war bu fexee ba njëkk a nuyu kay dox kon dana wane ni yëgul boppam dara ndax day mën daa ëpp daraja kay dox waaye kon bu ko njëkkee nuyu rek day mel ne kon yëgul boppam dara ki dox ba ñëw itam gaaw nuyu ka toog moo woon muy xaar ba ka toogoon jóg di ko nuyu mel ne kon daa yëg boppam ba dara wal musaafaxatu saafoxante xasanatul aj rafet la saafoxante mooy jàppante loxo bu dëgër nuyoo bi moom mooy wax gi ci làmmee ñu nuyoo bi waaye nag joxante ga ay loxo bu dëgër mooy saafoxante moom nee nañu lu ñu sopp la ñëw na ca hadis ba ma min muslimayni yaltaqiyaani fa yatasaafaxaani illa xufira lahuma qabla an yaftariqaa ñaari julit bu ñu tasee saafuhante bala ñoo tàggoo rek yàlla jéggal leen ñoom ñaar ñëpp waaye nag saafuhante kat góor ak góor ñoo koy def mbaa jigéen ak jigéen góor wala jigéen kenn suñu caa jox moroom ma loxo ndegam duñu ay araamante bu ñu dee ay araamante itam rekk ndegam góor ak jigéen la bañ ngaa joxante loxo moo gën kon nag mu xam ne jigéen jox loxo góor wala góor jox jigéen loxo aada yi tubaab yi rekk la waaye dafa araam araam na góor ak jigéen yoo xam ne ay jaambur lañu kenn ka jox moroom ma loxo wa kariha sib na malikun malik al muhanaqata bokkonte ga bokkonte mooy kee jël ak doqam teg ci doqub moroomam ñu tegantey doq malik moom nee na sib na ko ndax mennum jànfar rek lañ mës a dégg yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam def ko moom jànfar moom nee nañu ba mu bàyyi ko ca Éthiopie ñëw yonante bi daal bég ci moom lool daal di doqoonteeg moom fóon ko ci diggante ñaari bëtam ne jànfar day mboolem nit ñi moo ma ci gën a niru ci bind gën ma cee niru ci jikko nee nañ boobee jànfar dafa bég bay fecc ba fecc moom ba léegi moom la soofiye yi nit yàlla yi di fecc mbaa def lu ko nuru buñ bégee ci seen digganteeg seen boroom Malik ne loolu jànfar rekk la ko yonante bi jagleel gisuñu mu def ko keneen te gannaawam gisu saaba yi di ko jëflante ci seen diggante léegi mu ca teg nag ne wa ajaa saha waaye daganal na ko ibnu xuyeynata ibnu xuyeynata ibnu xuyeynata ku baax ku amu xam la moom daa wax ne loolu jaxfar jegoowu ko jaxfar nooyam rek ci googu wàll bu aayoon dañ nu koy aaye kon loolu dagan na dara nekku ca wa kariha sibna malikun malik taqbila yadi foon ab loxo Malik moom day wax ne bu sañoon kenn du nuyu kenn di foon loxoom ndax bañ koo yëg boppam defe ne moom dara la wa an karate mu weddi maa la nga xam ne ruwiya nett def na ko fii ci moom lañu nett li ci foon loxo yi ka ngay nuyool Malik bu ne weddi na ko jubluwu ci weddik wéruk addis ya ndax addis ya moom Malik ci boppam rek moo gis ne daal ka ñuy nuyu di fóon ab loxoom loola mën naa tax mu gis boppam bokk na ci lañ ca nett nag ci addis maaruwiya أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتدروا يديه ورجليه فتي ومنها تقبيل سعد بن مالك يده صلى الله عليه وآله وسلم ومنها تقبيل الأعرابي الذي قال أرني آية فقال اذهب إلى تلك الشجرة وقل لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوك فتحركت يمينا وشمالا وأقبلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تقول السلام عليك يا رسول الله فقال له قل لها ارجعي فرجحت كما كانت فقبل الأعرابي يده ورجله وأسلم ومنها غير ذلك من الأحاديث ñett li bu njëkk bi dane délégation bu abdul xays ba ñëwee ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dañoo njëkkante daal di gaaw fóon yaari loxoom ak ñaari tànkam nett li bi ci topp dane ku ñu wax saadu bnu malik fóonan na loxol yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñetteel dane am na sàmm arab bu ne woon yonante bi wan ma kiimtaan guy tax ma gëm la yonent bi ne ko demal ne garab gee wuyul muhammad sàmm arab ba dem ca garab ga ne ko muhammad mais moo lay woo nee nga wuy si ko garab ga daal di yëngatu ñëw wuy si daal nuyu yonent bi garab gi moo nuyu yonent bi ne ko asalaamaaleyka ya rasulallah yonent bi ne sàmm arab bi neel garab gi yonent bi nee na nga delluwaat fa nga nekkoon garab ga daal delluwaat famu nekkoon sàmm arab ba daal di gëm fóon loxal yonante bi ak tànkam daal di tuub dugg ci lislaam am na sax yeneen addis yi bokkut ak yooyu kon loolu mooy tegtalu addis yi bu dee ci gis-gisu yoon waa maali ñoom dañuy jàpp ne sa waajur boo ko dee nuyu mën ngaa fóon loxoom ba tey boroom xam-xam mbaa waa ju baax ju ñu yaakaari barke ba tey boo ko dee nuyu mën ngaa fóon loxoom waaye teewul nag maali moom ne day bañ daal duñ ko defalee kenn kooku yëg boppam wala tuttadaw deful jëkke al yahud yahud ya wan nasara ak nasaraan ya bi salaam yi ci ab nuyoo ab yahud mbaa am nasaraan daal bu jekki-jekki di ci nuyu kenn di ko ñaanal jàmm teewul nag faman sallama ku nuyu ala zinni yin ci kuñu fasantil wala rek yéefar bi ñu fasal walare fala yastaqiluhu kon du ko xàcclu nee na nag boo ko see nuyu ak yéefar ba noppi mooy kuñ fasal walare bul jekk di ko wax naa ko delloo ma saa nuyoo bi man damaa defoon ab jullit nga waaye kon duma la nuyu loolu ëpp naa def xamal ne juum nga ba noppi rek dem xamoo ko woon rek bàyyi ko noona wa in sallama dem nuyu na xale yi ci moom al yahudi yu ab yahud awi nasraani wala ab nasraan fal yaqul na wax xaleyka xaleyka dong nee na ab yahud mbaa am nasaraan bu la nuyoo itam yamal képp ci baatub xaleyka boo koy fay ndax dañoo wax ne yahud yi bu ñu mësaa di nuyu yonante bi mbaa kenn jullit ñi dañ koy wax assalaamu aleykum assaamu ji firi dee waaw moo tax nag ñu bëgg ab yahud bu la nuyoo yow jullit bi ne ko rek xaleyka képp yem ci wa man xaala ku wax nag xaleyka yàlla nekk ci yow assilaamu ay doj bi kasri siin ci kasra siin sa waxiyete moom assilaam alxijaaratu moo di ay doj faqat xiila kon waxees na zalika loole ba tey nee na yahoot mbaa nasaraan bu la ci kenn nuyoo ba nga koy fay nga ne ko xaleyka silaamu moo yàlla na la yàlla rëbb sànni lay doj loolu kon baax na na nga ko fayee baax na wal istizaanu diisoo waajibun aji war la bala ngaa dugg néegub jaambur ngaa war a yëglu bañ na la jàll si nga door a jàll si waaye suñu laa jëkki-jëkki rek dugg ci néegub jaambur képp koo xam ne rek suñu laa xool awraam suñu laa jëkki-jëkki dugg ci néegam te mayu la ca ndigal bu dee koo xam ne nag sañ naa xool awraam mel ne néeg boo xam ne sa soxnaa ca nekk wala jamono ya jébir amee sa jébir moo ca nekk kon moom mën ngaa jékki-jékki dugg te ñu sopp rek nga yëglu bala ngaa dugg fa in udina ndéem digaleef na làkk ñeel la kon baax na nga dugg wa illa ndéem digaleefu la rajaata nga dellu bu yëgloo ca bunt ba te wax la bismillah jàll si nga jàll bu fekkee nag kenn waxul dara te xam nga ne yëg nañ la nag na nga wàññiku bul jàll ñoom dañuy wax naa melaw diisoo gi mooy da ngay wax asalaamaaleykum la adduxulu asalaamaaleykum ndax mën na maa jàll si ba muy ñetti yoon boo ci amee ndigal jàll boo ci amul ndigal nag wàññi ko waaye nee nañu fëgg buntu baag xadd mi ko yi demee noonu ba tey wecc na yëglu boobule way wura xamu def na xemem loo fi iyaadatil marda ci seeti way tawat ña bokk na ci ñu sopp tam bari tuyaaba seeti ko tawat sa mbokkum julit tawat nga seeti ko ngir yàlla bari na tuyaaba lool seeti ko tawat di ab julit bokk na ci furoodul kifaayati maanaam tey ab julit bu nekkee seen tawat faaw lu néew néew war naa am ci julit ñi ñu dem seeti ko waaye bu ko ñëpp seetaanee kenn bañ koo seeti ñëpp bokk am bàkkaar su fekkee ne nag ka tawat day koo xam ne ab dundam yow la war kon faaw bu tawatee rek war ngaa dem seeti ko bu daal doon farata jëmm waaye dana weesu doon fardu kifaaya kese wala yeta naaja du sañ a deeyaale is naa ni ñaar doona waaxilin ci loolu kenn nee na ñaar dañuy bañ ñu toog fee di deeyaante bàyyi kenn képp loolu day mel ni kooku day ñaaw njortu ci ne moom la ñuy fexee la ka jéem a lor ba tey itam ñaar di waxante làng woo xam ne xam nañ ko bàyyi kenn rek te kooku xamut woowu làng loolu dañ koy aaye ba tey dañu bañ mu ñaaw njort ne dañ koy fexeel wala ci moom la ñuy wax wa kazalika naka noonu jamaatun mbooloo ida ab xaw ndem desal nañu waaxidan kenn minhum ca ñoom ba tey mbooloo toog di déyaale ka diisoo bàyyi kenn képp bañ ko caa boole ba tey loolu dañ koy aaye waqad xiila waxees na ne laa yambaxi lu yell daalika loole illaa bi isnihi ndara ci ndigalam la mu aaye woon léegi rek ñaar di deeyaale bàyyi kenn wala mbooloo di deeyaale bàyyi kenn la wax ne ñenn ñi nee nañu kenn ko kii kat moo ci am àq bu leen mayee loola dara nekkatu ca sañ nañ ko wa dikrul hijrati tudd ak tong xadd taqaddama jiitu woon na fii baabin ci ab bunt xabla haasa ci njëkk bi tong mooy jàmbu ne moom nag jotoon na caa wax lam ciy wax ba noppi kon du aajowu mu di ko baamuwaat fii xaala wax na muhaadubnu jabalin muhaadubnu jabal ne maa xam ne jëfut aadami yun doomi aadama xamalan jëf an jaaju gën a musal laxoo ñal ko min xazabillahi ci mboolug yàlla min zikrillahi ci tudd yàlla muhaadubnu jabal nee na woon doomi aadama jëful jenn jëf joo xam ne mën na ko musal ci mbugalum yàlla ni nga xam ne moom la ko ci tudd yàlla yi musale tudd yàlla daal ni muy musale doomi aadama ci mbugalum yàlla amul jeneen jëf ju ko na mane waqaala waxoon na xomaru xomar ne afdalu la gën min zikrillah ci tudd yàlla bi lisaani ci làmmiñ zikrullahi mooy tudd yàlla inda amrihi fa ak digleem wa nahi akuk tereem omar dane woon tudd yàlla ci làmmiñ di baax na waaye li gën daal mooy su yàlla diglee nga fàttaliku lam ca dële ci aw yiw daal di gaaw def ndigal la bu yàlla teree nga gaaw fàttaliku yàlla fàttaliku na mu tëkkoo ca tere googee daal di gaaw sori loolee mu tere lu aju ci tudd yàlla lim ci wax dafa bariwut te moom nag buntu bu yaatoo yaatu la bari ay ngëneel lool bu sëñ Touba wax ne sax li ëpp solo ci ab taalibe daal mooy baril tudd yàlla tudd yàlla dafa yaatu jàng alquran moo ci gën a màgg jàng xasidaat xeet si kër yépp itam dugg na ci biir boo bëggee dolliku nag ci xam ay ngëneelam da ngay dégluwaat kaset yi sirkul jawahir wala nga dégluwaat masaaliku jinaan ak yu demee noonu tudd yàlla it ñaari xaaj la xaaj bi gën a màgg mooy nga di ko tudd ci làmmiñ wi te fekk yaa ngi koy teewlu ci xol bi baat yi ngay wax sax bu fekkee xam nga max naama yaa ngay teewlu max naama ba ca des nag mooy nga di ko tudd rek ci saw làmmiñ waaye teewluwoo màggaayu yàlla teewluwoo max naay la ngay tudd ci saw làmmiñ loolu nag mëtt xeeb ndax nee nañu soo ko barilee day mujj yóbbule ca xaaj bu njëkk ba te mooy di tudd yàlla ànd ak teewlu màggaayam ak maxnaay la ngay wax ci saw làmmeñ wa min duhaai rasulillahi bokk na ci ñaanuk yonante yàlla ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kullama asbaha saayu masaa xëy wa amsa ak saayu masaa gont wax ni allahumma yow buur bi bi ka ci yow nusbihu la ñuy xëyee wa bi ka te ci yow mumsi la ñuy gonte wa bi ka te ci yow naxya la ñuy dunde wa bi ka te ci yow namootu la ñuy dee wa yaqul tamit wax fi sabaax ci suba ga wa ilayka te jëm na ci yow an nushuru dekki ga wa fil masaa ci ngoon ga mu daanele ko wa ilayka te jëm na ci yow al masiru mujj ga daa wax ni bokk na ci ñaan yoonante bi day bu masaa xëy day wax sunu boroom yaa amee sunum xëy ak sunum ngont sunu boroom yaa amee sunug dund ak sunug dee bu dee waxtu suba mu daaneele ko yow day yaa nuy dekkal taxawal nu ci sa béréb ba nga xam ne fa nga nuy àttee nga xam nga yeewoo suba kenn ku ne jóg jëm ci itteem daa nuroonteeg bu ñu dekkalee nit ñi ñu bàyyi ko ci seeni bàmmeel kenn ku ne war a wuti fa ñuy taxawi bu dee ngoon nag ñaan nga genn gee waaye da koy daaneele wa ilaykal masiru ndax di dox ay soxla di dox ay soxla ci bëccëg bi ba ngoon jot nga dem tëri daa nuróonteeg di dund di dund di dox di dox ba yàgg nga faatu dellu ci yàlla dellu ca bàmmeel ya kon ñaan gi genn gee day wax rek allahumma bika nusbihu wa bika numsi wa bika naxya wa bika namootu bu dee suba gi mu daaneele ko wa ilaykal mushooru bu dee ngoon nga nag mu daaneele ko wa ilaykal masiru waruya nettaleef na maxa zalika ànd ak loolee li mu ci bëgg a teg maanaam bu fekkee ca suba ga la bu masaa wax ñaan googu ba noppi daana ca dolli lii allahumma yow buur bi ijxal ni yal nag ma def min a'zami ibadika ma bokk ci gën jaam màggi sa jaam ñi xindaka fa yow xazan ci ab cër wa nasiban ak ci ab cër fii kulli xayrin ci bépp yow taqsimuhu wow danga ko séddale fii haadal yawmi ci bile bis wa fii ma ak ci la nga xam ne baadahoo nekk na ci gannaawam min nuurin ci leer tahdi kooku da nga gindee bi ci moom aw rahmat ni wala yërmaande tam suruha boobu danga ko tasaare aw riskin wala wërsëg tabu sutuhoo boobu danga ko tàllal aw dorrin wala lor takshifuhoo joj danga ko wuññ aw zambin wala bàkkaar taxfiruhoo boobu danga ko jéggale aw shiddatin wala ab tartara tadfamuha boobu danga ko jiñ aw fitnatin wala fitna tasrifuha boobu danga ko walbati aw muhaafaati wala ak jàmmale tamunnu kook danga xéewe bihaa ci moom bi rahmatika ci seemaane innaka naka yow qadirun aji attan nga ala kulli shay'in ci nekk mbir yonante bi masaa wax ñaan ngee daana ca dolli sunu boroom man de dama lay ñaan yépp yi woo xam ne danga ko séddale tey jii mbaa gannaaw tey rek naa ci ëpple moo xam day leer goy gindee say jaam wala mu yërmaande jooy tasaare wala muy wërsëg woy tàllal wala muy lor jooy teggi wala muy bakkaar booy jéggale wala muy tartar booy fekk wala muy fitna jowal buti mu dem wala muy ak jàmmale guy xéewal say jaam yépp daal lu mu ci doon rek naa ci ëppale wa min duhaa yi bokk na ci ñaanam nga alayhi salaam hinda naw mi fa na ma tëdd nelaw annahu naka moom kaana nekkoon na yaddahu di teg yaddahu loxoom alim naa bay ndeyjoor taxta xaddi yi ci ron lexam ba al aymani bay ndeyjoor wal yusra mu teg loxob càmmooñ ba xalaa faxis yi ci luppam ba al aysari bay càmmooñ suma yàqul topp dana wax lii ni allahumma yow buur bi bismika ci saw tur wadaatu laa tërale jam bi sama wet gi wa bismika te ci saw tur arfaahu laa koy yëkkatee allahumma yow buur bi in am sakkata ndeem jàpp nga nafsi sama bakkan faxfir yàlla na nga jéggal laxaañal ko wa in arsaltaha ndeem boyal nga ko faxfadha yàlla na nga ko wattoo bi maa ca la nga xam ne taxfadu da nga wattoo bii ci moom assaalihiina way baax ña min xibaarika ci say jaam allahumma yow buur bi inni yanaka man aslamtu jébbal naa nafsi sama bopp iléegi jëm ci yow wa aljatu te wéer naa zahri sama gannaaw iléegi jëm ci yow wa fawwadtu te féetale naa amri sama mbir iléegi jëm ci yow daañu ko wax fawwadtu joyal naa waaye moo ko féetale benn lañ wa wajjahtu te jubale naa wacc yi sama jëmm iléegi jëm ci yow rahbatan ngir ragal min ka ci yow wa raxabatan aku xemmem iléegi jëm ci yow laa man jaa déet benn muccukaay wala nga ne ab rawukaay wala mal jaa déet benn wéerukaay mbaa nga ne làqutukaay min ka ci yow illaa ilayka ndare jëm ci yow astaxfiruka maa ngi sàkku sa njëgal wa atuubu te may tuub ilayka jëm ci yow amantu gëm naa di kitaabika ci sa téere bi allësi bi nga xam ne ansalta wàcce nga ko wa bi nabiyika ak sa yonante bi allësi bi nga xam ne arsalta yónni nga ko taxfir yal na nga jéggal lii ñeel ma maa la nga xam ne xaddamtu jiital naa ko ci moy wa maag la nga xam ne axartu yeexe naa ko ci topp wa maag la nga xam ne asrartu nëbb naa ko ci moy wa maag la nga xam ne axlantu feeñal naa ko ci moy ante yow ilaahi yaay sama buur laa ilaha amul benn buur illaa anta ndara yow rabbi yow sama boroom xi nii yal nag ma fegal xazaabaka sa mbugal yow ma tabaxasu te bis pare nga dekkal xibaaraka say jaam yoonante bi day bu musaa di bëgg a tëdd ñii daana ko def day tëdd rek wetu ndeyjoor te gegenoo loxol ndeyjooram ab lay xam tewu ca bu ko defee nag jël loxob càmmooñam teg ko ci luppub càmmooñam daal di wax ñaan gi nag ne suñu boroom ci sa kàttan laay tëdde nii te ci sa kàttan tam laay jóge maa ngi lay ñaan nag bu fekkee ne nii ma tëddee danga maa far faat mu fay far jëlee yeewuwaatuma kon yal nag ma jéggal su fekkee mayaat nga ma ma yeewu nag yal nag ma sàmm ni nga xam ne moom ngay sàmme sa jaam ñu baax ñi suñ boroom man dey jébbal naa la saa bopp maa ngi wéeru ci yow di la féetali sama mbir di la dëgmal yow rek ragal la yaakaar la xam naa ne kuy daw yow lay daw kuy làqatu ci yow lay làqatu ndax yow rek yaa fi nekk maa ngi sàkku sa njéggal di la tuubal gëm naa sa téere bi nga xam ne moom nga wàcc ci man gëm naa sa yonante bi nga yónni fekk na moom mooy ki yàlla mujj yónni daaneele nag yàlla yàlla nag ma baal lépp loo xam ne moom laa jiital ci bàkkaar mbaa ma yeexa ko ci ak topp yàlla mbaa ma làq ko ci ay bakkaar mbaa ma feeñal ko ci bakkaar yow daal yaay saa boroom te yow rek ay buur bis ba ngay dekkal say jaam nag yàlla na ma fegal mbugal gaak tiis ya wa mimma bokk na ci li nga xam ne roye net leef na ko fi duxaay ci ñaan xindal xuroo ji fanam ma génn minal man sili ci kër ga allahumma yow buur bi inni naka man ahodu danaa musul bi ko ci yow an abdil la may réer aw ubdal la wala dee fi ma réeral aw azil la wala may tarxiis ba wàcc dëgg aw uzal la mbaa dee fi ma tarxiisal ba wàccee ma ko aw azlima wala may tooñ aw uzlama wala dees ma tooñ aw ajhala wala may réere kenn ba dal ci kawam aw yu aw yujhala mbaa dee fi réere xàlla ya bay dal ci sama kaw nee na yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu ma saa di génn këram daana wax ñaan gi suñu boroom suñu boroom maa ngi lay ñaan ma bañ a réer te kenn bañ maa réeral ma bañ a tarxiis bay wàcc dëgg te kenn bañ ma koo wàccee may ma it ma bañ a tooñ kenn kenn bañ maa tooñ may ma ma bañ a umpale kenn bay dal ci kawam musal ma it ci kenn di ma umpale bay dal ci saa kaw waru yenet leef na fii duburi kulli salaat yi ci gannaaw gépp julli an yu sabbi xamu sabal allah yàlla talaasa ñett wa talaasi naag fanweer wayu kabbira tamuy kabbar allah yàlla salaasa ñett wa talaasi naag fanweer wayu ahmada tamuy sant allah yàlla salaasa ñett wa talaasi naag fanweer wayu axtima tamuy mottuli almi ata téeméer ba bi laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa ala kulli cheyin qadir loolu waxam na ko ca